Abuse Soko! Abuse Soko! Brasil! Vida Romão! Vida Romão! Vida Romão! Vida Romão! Vida Romão! Não, não, foi! li ma li ma personne ne peut rien lii kenn mënu ko. gars yi wàcc leen damay accéléré oto yi. ah accéléré bi ñu wàcc accéléré ñu wàcc. on vous remercie wàcc leen wàcc leen doo wërëm. président président. joo day dé day démarré c'est ça tànk bi daa diis. joo joo toogal. Sen aksana lan ya aksana gire.

day day day kii wax la gars day jukkee day kii ba day accéléré dox accéléré vraiment yéen day ñu tàmm leen tàmm leen bu baax. ñun Sonko ba ñu amal njëriñ ah jàpp nañu daal taxaw gis nga ba taw. Maquinera Zunerco.

Oh my god. dám lên khô Désolé, eh, I'm so sorry, eh! Sur la tête du logo!

kay xool dañ di wàcc yéen ngeen yëpp comme ça seen kay taw ko dañ koy bindee ba koor ci ci bu ko dañ ko rek dañ ko defal lu ma la wax rek dara bu ma la ñaan lool def leen li ma leen wax wàcc leen quoi kay on descend on descend waaw moo leen di oo fële dama fay ko. allez la répondre là-bas moo leen di oo. uyu leen ko fële. non non non. policier bu ñu non pour ma gën a amoo non ma rek. bu ñu dugg si policier. ça dépasse même la politique idéologique. C'est le plus important. Hein? C'est le plus important. C'est un, projet pour nous. C'est pas la personne. C'est pas son personne qui est C'est le projet. On défend le projet. Son...